Jóob saam Seex Masamba Jóob borom daaru saam sant ko war jaa ngeen jëf mbokk yi ak Touba TV Argentine ñu leen di gërëm bu baax mu mel ni dañuy dem Sénégal te ji lañ doon amal journée culturelle boo xam ne ñu ngi ko jagleeloon sëriñ Masamba Diop Samb fële ci Dakar Massalikul Jinaan eh, dañuy diglu sëñ Xaadim Njaay mu dikk ak ñun ci ay leeral daayira Serigne Massamba Diop Samb bi féete fii ci Ndakaaru ñi ngi doon amal ab journée culturelle boo xam ne dana ko duppee Serigne Massamba Diop Samb ay at ngi ñu koy amal ren ñu ngi ko duppee ñetteelu xalifab Serigne Massamba Diop Samb di bàyyi Serigne Diop bi la journée culturelle ñu bari di ko teewee muy sët yi wëllëre yi am di jàmm yeeg dëkkandoo yeeg taaliba yi mboolem njabootug Serigne Massamba Diop Samb teew woon journée culturelle bii nga xam ni daayira Serigne Massamba Diop Samb bi ñoo koy amal fii ci Ndakaaru ci Masaalikul Jinaan ñu amal ko nag ci njàngum alquran ak xasida bernde ci ay exposition ak ay témoignages jëm ci Serigne Massamba Diop Samb ak ay conférences